ajar waaw di santaat yala rek di julli ci yonent bi di sant waajur yi rek waaw di santaat waa koñ bi bu baax a baax a baax a baax ah. di noyu ñëpp di sant ñëpp gis naa ni ñu ma jàppalee ci combat bi affaire yi miti woon na trop waaw mais mujj nañ ko seere bi laaxi mais ñoom gën nañu jàppale ma comme seen doom quoi waa Grand Yoff seen fay maa ngi di sant bu baax a baax ak waa Castoran ah. maa ngi leen di sant bu baax reefan ga ma dégg maa ngi leen di sant rawatina waa Saamel waaw nañ ma jàppale nañ ma jàppale suñu ma jàppalee daay doon sampiyon mais yàlla baax na daal maa ngi gis li ma war daal te jàppale ma dem ñàkk a jàppale it mooy loolu ma nekk ci billaahi mais combat bi daal miti woon na trop daal mais waaj nañu ko ànd sama gaay yi ñu ciy son trop lu ñu am jox ma billaahi lu ne daal daj nañu ko ci combat bi ndax bari woon na coow wax ji bari na coow li bari woon na trop mais mujj nañ ci sant bu baax a baax daal après nga laal question yi mu ñëw defaguma ci lam dara billaay man dama opté bore ay combat capital ay grand combat loolu laa opté mais defaguma fi dara ay premier combat ay deuxième combat yooyu defaguma ci lam dara su ma jéemee naagu rek wala may jéem a lii ma xam ne mooy loolu quoi billaay defaguma dara maa leen gën a bëgg ndam fuuf nañu ñaan rek te jàppale jàppale ma boobu moo nekkoon sama troisième combat mu doon troisième victoire di ñaan yàlla mu yokk bu baax a baax a baax a baax dem bu doon roi des arènes te du am defet loolu laa opté bilaahi te suñu ma jàppalee rek dama koy def ndax gém gëm baa ngi fi xam-xam baa ngi fi lépp a ngi fi daal waaw. saamaro laa laa jëkk a bëreen ci combat Sa Thiès après ma jël jàngalaar coow li bari trop Sokh ci combat Mor Kang dab daan laa ko daan soog a ñëwaat ci dumbul siñoor mi parki demoo Ndiaye ah, bés ni tey ah, ma defal ko affaire. waaw noonu laa ko defee waxoon naa la ko fii dinaa la bëre laa gën a mën xeex. ndax booy am na ñooñ dañoo bari wax suñu waxee moom foog nga wan leen ne affaire bi du wax foog nga def leen lu metti waaw noonu la deme nag kii moom dama di son break laa def noonu la demee dañuy préparer ñun lépp combat yàggee dañu koy seere su yéexee dañu koy seere ndax dañuy entraînement suñu waa écrit billaahi wallaahi dañu may teg lu métti affaire bi daal dañuy entraîner bu baax a baax a baax a baax di sant sama coach su village ñoom yi la sukkee sama papa chaque jour damay nime ba da jon yaa ngi dem géej yaa ngi entraîner demal entraîner ji mais kenn du ma soñ ci affaire yooyu ndax man sama bëgg-bëgg la du toog di nelaw am combat ñàkk combat waawaw maa ngi teral bu baax a baax a baax a baax di wax daal jàppale rek moom laa jooy mais li la lam laaj lépp daa koy def suñu yooyu yëpp kay supporters yi kaar yeeg yooyu sama gaay dañuy def bu son billaay walaay dañuy def bu dootuñu mon mooy loolu mais suñu amoon ñeneen ñoo xam ne dañuy jàppale ñu jël quoi ndax combat bi gisoo li nekkoon fii ci mbooloo te booy seen doole tolluwut noonu seeni fukk-fukk la ñu yor seeni cent franc cent franc mooy loolu suñu jàppalee mber bi rek mën naa am mooy loolu li ci des duñu ko mën a mettale billaahi suñu ñu jàppale woon nag loolu lañuy ñuy jooy quoi jàppale rek billaahi non fii mu ne nañ ma jox samay morom rek fii mu ne moom gaan affaire yi ubbeeku na samay morom nañ ma jox si tabu ngor waaw moo su ma ko na ragal tikki sama ngëm non sama mafia ko gën a diis bilaay walaay <laughs> <laughs> non loolu dawul sama yaram man sama bopp laa gëm xam ne caat nga wax ne ama duñu benn suñu soufflé woon maak si tabu ngor gën suñu diggante di nga xam ne mooy loolu ni ma defi moroomam rek laa koy def wal gang wala ma duma ko ba mu daw gën géew bi bilaay walaay mën naa ci moom dara waaw <laughs> non neexali lan balaa moo gën na neex woo ma léegi andi avance bi waaw. ragaloo loolu de. ragaluma loolu. booy ma war a mën a bëreet bari na mais booy moom koo laaj kom nii rek su ko gisee day dagg statique pour naan kii damay laaj. non lam boole nañu. lam boole nañ ñoom buusi tey ñooñu waxkat yooyu lam boole nañu ak ñoom. Ah. waaw kooku it lam boole nañu ndaanaan la. seetaan naay combat am waaw noom njool la neex na bëreel non man mi su ma jàppee mu jeex waaw bu baax a baax man ragaluma kenn su ma amee lu may ragal rek ci lam billaay walaay ma arriéraat fowum góor la li ngay daj entraînement mënoo koo daj ci géew bi billaay walaay moo tax géew bi daa neex a seere te combat bawol moo gën a metti fii fuuf te dañuy taxaw di ko seere waaw moo tax lambi fii daal jaaxaluñu soo gisee lu combat metti metti wala lu mu yom yom dañu koy tam bawol daal dañu ñëw fii tari war na jàng nañu lépp fee waaw non non Boy Diop ma ko a ko bëgg a rek naan Boy Diop Boy Diop mais su dikko ni sama papa d'accord man aw ma lu dul sama papa Bada Dione su ma nee suba dangay ngay bëre damay bëre su ma nee tey dangay ngay bëre damay bëre. non man bañuma kenn ci làmb ku ma ne kii la rek kii la ma ne kee la ñu bari mooy loolu xanaa double junior mi laa gisee sama adversaire bi ma koy jël mais ñi ci des yëpp danaan ma am nga combat yaak diw rek ma dem préparer ko double junior daal daje nañu stade bi ma koy jël mais lu ma wax rek suba bu ngoon moom laay def quoi sama père Bada Dieng su pare woon tey kay pare na moom kay du wax ma ciy teg baat billaahi non à part ñooñu booyi bari nañu fi nañ ma jox booyi rek ma bërek ñoom <laughs> booy jama geen boobu nañ ma ko jox est que duñ ma jox liis Laurent moom tapet la moom duma ko tut waaw kooku moom gaañ mberu TikTok la liis su ñëwee baax na waaw non bëre bu sew jaaxal ñu liis lu mu am loo xamante ni jaaxal nañu gisuma ko de bëre boo xam ne jaaxal na ma gisuma ko ci moom wala xeex moom sax day yooru du xeex waaw. non à part sax Amet Lagros sama doomu ndey gis nga ni mu ko def waaw songle door ci suuf lis jaaxal lañu waaw ñun daal ñu ngi fi daal di pare ñëpp fu ñu lam boole rek ñu laale ki yow quoi bilaahi waaw amul ragal mafia bi. bu leen waaw am de moom lenn la ñuy wax si moom mooy borom jom la quoi man gëm naa ne kuñ ko booleel bu soobee yàlla bu pësee foo day am ndam quoi parce que xamulu dañuy dem entraîner. gis naa li muy def foofu noonu man dama ciy teg sama bët ba gars yi nekk foofu noonu mooy loolu noonu quoi billaahi su góorgóorloo moom allah day am dara quoi barke Serigne Bamba parce que jom jaa ngi fi fula jaa fi mooy loolu noonu quoi billaahi te waxam bëriwul li muy jëf moo ëpp li muy wax quoi man nag damaa wul wax quoi mais suuru combat bi donc wane na ko ñun dañoo demoon ba jaaxle. mais suñu borom bis na ci ndox mu sedd te incha allah yeneen yi ñëw sax mooy daax ñun defaguñu dara si laamu barke Seydina Muhammad sa waay defagul dara ñun ñoo ngi si ginnaawam billaahi wallaahi fu mu mën di nekk ñoo ngi si ginnaawam wasalaam. dégg naa leen yéen ñiy suivre yéen ñëpp di sant waa Grand Yoff waa Bawol ga ñu jógee mënu ñëw sant kenn te duñu sant waa Bawol di wax sunu doom day champion la ndaanaan la barki yàlla te ñun ñi ànd moom depuis temps booy ba tey xam nañu qualité bëre bu nekk ci moom ak jom ci moom bañu doon lu ndaw ñooy ànd ba joni tey lu mu dugg suba bu ngoon xam nañu ko tey ñaan waa Bawol ngir yàlla surtout waa Saamel ngeen jàppale seen doom seen rakk parce que yàlla bu ngeen ko jàppalee ñu am champion comme ñëpp nañu ko jàppale jàpp ci ngir yàlla jour combat chaque jour ñun ñu sees dañuy sonn sax torop billaahi combat day passé sax moom dërëm du ko dese barki yàlla dañ koy mujj sax yërëm billaahi waa saamel laay waxal waa saamel ngeen jàpp si jàpp leen seen doom ngir yàlla ñu am champion comme ñëpp qualité bëre baa ngi qualité xeex baa ngi fi te nangu naa entraînement jàpp leen si ngir yàlla loolu rek laay wax jàppale bi jàppale bi moo des. koy toggal ñun waa kër gi si kaw ba si suuf ah ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal si kaw ci kanam. baayam suñu xarit la quoi waaye amaa nag dana dem ba ci kanam ci kanam ba nekk na roi de arène waaye loolu la ñuy ñaan yàlla ko wala souhaite de bon sens quoi noonu la quoi jërëjëf. bu rombee day nuyoo jàmm sante am itte dafa am itte comme papaam rek ni mu fi nekkee woon papaam tamit mu fi nekkee noonu la baax bëgg nit. xale yi nii bu génnee day dem si bitig bi jënd lu rekk mu jënd jox xale yi ama dafa baax moo tax ndam rek lay am bu soobee yàlla day am lu baax. ba bokkut ak mbir yi nga xam ne dañuy rom di jël jël ay maire yi mooy am na mbir yoo xam ne nii dañoo xaw a sikk dañuy rom di jël njaayu maire yi. déedéet amaa moom bokku si yooyu moom moom bu ñëwee bu mënut jënd day toog waxtaan ak xale yi même sama rak bi lay toog di jaay mais day toog fii waxtaan ñëpp la amal jàmm daa amul benn problème dëgg yàlla. Mhm. yomb moom doomi Grand Yoff doomi ah, ah, Bawal ah wax ci moom day yomb ndax am ngeen yar am ngeen teggin lu leen lu ngeen amul daal ci lu baax di leen wax amin rek suba ba ngoon daa war a gut a egsi rek waaye bu egsi rek di bu bu egsi rek bu ko yàlla dogalee dina egsi bu soobee yàlla ndax ndax seen yar seen comportement seen teggin seen baax ci yéen doomi Bawal yi yëpp. ndax jigéen ma ko man mii di seen yaay ndax kenn ku ci ne may na ma yar may na ma sutura may na ma teggin ci ñëpp nag amul ci kii amul ci kaa ci ñëpp nag ci ñëpp laa ko yemale nag waaw kon man dama leen di ñaanal toujours man mi seen waajur maa ngi leen di ñaanal fa ma toll dee leen wax amin nag kontaan naa sama xol sedd na waaw sama xol sedd na kontaan naa daal man waaw kontaan daal bu ma mën ne mën na ma weesu ne kontaan naa weesu naa kontaan naa ndax am ngeen yar am ngeen teggin kon wax ci yéen yomb na ndax nit ki moom kilifaam rek la am te kilifa boo ko amee may ko yar may ko teggin desee la too ko dara ah, waaw mu ngi waaw mu ngo ba ci sëñ Fallou mi nga xam ne moom buy bëre sax mu daal di bàyyi hmm. moom gën leen a yokk ñaan yi rek <laughs> dañu ko bër la wax dëgg yàlla mbir moom soo ci nekkee te amoo benn uh, loo xamante ne da koy boole moom moom entraînement rek lay def ñëw jàpp ñàmburam waaw nekk ñëpp si ñëpp jàmm daal booy bu baax la te et am nañ si moom yaakaar te gis na ne tamit mbër la daal wax dëgg yàlla ñoo ngi koy séntu si kanam a kanam yii sax moom xëy na ay débutant la nii rek mais lii sax ñun fu mu ne na xam ne booy bi am na mbooloo te waa Grand Yoff topp nañ si ginnaawam te gëm nañ ko wax dëgg yàlla booy bi yaru te am nañ si moom yaakaar waaw yàlla na victoire rek gën a yaatu ñu gën a am ay combat gën a mag yii parce que yii sax ñun xem nañ ko du dara ci ñun mais kon ko soo duggee ci làmb moom da ngay raam nànk-nànk ba yéeg si kaw moo tax sax ñuy raam mais xam nañ ne ñu muy bërëg nii sax du seen morom voilà loolu la te xaale la tamit est-ce que yéen a ngi toog moom di ko conseillé waaw ñoo ngi koy conseillé moom wax dëgg yàlla ñoo ngi koy conseillé di ko naan tegal fi sa tànk te moom ku neex a conseillé la waaw moom jëlul mbër mi rek teg ko ci kaw defe ne na fu mu ne nii yegg na dafay mel ne sax day door a door waaw te moom mbër moom soo defee sa bopp bañ a kawe torop rek yàlla dina la mën a dimbale te te kawewul réyul bopp tamit wax dëgg yàlla mooy dëgg conseil yi ñu koy conseillé voilà loolu la waaw booy bu baax la. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm amaa moom sama doom ju baax la ndax fii lay toog saa yu wàccee fii lay ñëw fii lay ndékkee fi lay defee yëpp yëg ma nag te faale ma nag te ndam yi muy am maa ngi ko si ñaanal muy am ay ndami ndami ndami ndam ànd ak wér ak yërëm ba muy dem bay def grand combat loolu rek laa koy ñaanal bépp julli laa doo kaay ñu leen di siyaar bu di leen jox seen wàccuwaay waaw amaana sunu champion la bi ñu xamante yàggul noonu mais mu ngi mel na xamante nañ ay at waaw leen rek lañ koy ñaanal ndam yu yokku rek waaw ndam yu yokku parce que bu ñëwee fi day mel ne ñu ak ñoom ñoo bokk ñu ngi mel ne benn famille daal moom ak kobeem yëpp fii lañuy nekk léegi daf lay nekk ba yi 2 heures du matin une heure ñuy doog a dem tëddi waaw en tout cas ay borom baax lañ daal di leen ñaanal gudd fan wër wër la rek ak ndam yu saawaan baawaan rek doole sébra ay nuyu ma ama gone gu yaru la gu am yar gu am tegin moo tax ndam gi moom kanam la jëm ndam gi kanam rek jëmut ginnaaw de kanam la jëm ndax am na yar lool wax dëgg yàlla waaw ca kaw ca kanam rek ñu ngi koy ñaanal rek saa yu ñu ngi koy ñaanal rek ca kaw ca kanam rek waaw ndam li moom kanam la jëm demut ginnaaw ndax am na yar am na teggin te yar lu ne lu la mayul rek du la ko xañ mën na la may lu ne ñu la jaram salaam nuyu naa ñëpp sant naa ñëpp salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay siyaar yaa si jàmm bu baax alhamdulilah ama moom suñu ama la masala suñu champion bi xale bu yaru la am na talent masala di ñaan rek yéen ñëpp ngeen jàppale ko fi mu bëgg a egg daal yàlla suñu borom eggale ko fa lu kawe njortam di ko ñaanal daal xale bu yaru la jox na ñëpp cër macha allah mënuma wax daal amaa kuy wax si moom doo pare xanaa dangay son rek di ko ñaana daal fii mu bëgg a jëm na ko fa yàlla suñu borom eggale boo am si lu kawe tam daal macha allah. maa leen di bëgg di leen ziar lu bëri waaw di leen wax nag suñu mbër bii nii ah ñuy dégg ay ñoom Modou Lo ay ñoom Balla dañ ko fay dégg de ca kaw sa kanam mun naa bëre mun naa xeex te booy yi ngay dégg si làmb ji yëpp. li ñuy indi si ay supporters duñ ko fa indi yaa may dégg Siteu bu Ngor nag lañ soxlaa waaw wala Laurent yow mii di bëri wax yow lañ soxla defaral la bu cur dañ lay daan ba raxasoo la lu leer laa leen wax kii mooy Ama day ñëw de barki Serigne Bamba lu leer ca kaw ca kanam rek aca mbër barki Serigne Bamba tous suñu mbër bi moom gaan ñun moom rek lañ am de waaw te ñu ngi koy ñaanal nag yàlla defal ko mu amaat beneen combat si barki Seydina Mohamed waaw yàlla defal dégg dëkk Grand Yoff fii nii dégg fi bës boo xamante ne nii mooy loolu ndax yeneen dëkk yeneen banlieue lu ñuy am nii ñun bëgg nañ nga am Grand Yoff bëgg nañ am mbër ba nga xam ne nii dafa siiw foo tourné ñu dégg ñu naan doomu Grand la te amaa mii nii gëm nañ ñu mun nañ yóbbu foofu noonu waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm incha allah ah bëgg naa leen de yéen ñëpp gaañ ku nekk sa tur ak sa sant di bëgg suñu champion bi gaan di ko wax ni moom la ñuy waaw di bëggee suñu champion bi gaañ di ko wax ne mu gën a jàpp fu mu teg tànkam instant bi foofu la yéen a ma gën a xam ca kaw ca kanam rek ñun moom ñu ngi si ginnaawam pare nañ pour lépp yaa ma gën a xam comme lu saay wax léegi rek ñun dañoo soxla am champion boo xam ne Bayern gars dañ koy dégg fu ne parce que dafa jot quoi Grand Yoff dëkk bu mag la te moom ñu ngi si gën a ginnaawam di ko jàppale lu mu pare rek pare nañ ko quoi di ko wax ne mu gën a yokk entraînement lu mu doon def benn na ko xeeb mu doon def 10 na def 20 yokku ko parce que mun naa ne lépp entraînement la entraînement moom boo si roodee rek loo song da kay koy daan quoi ko nag di ko wax mu dalal xelam ñu ngi si gànnaaw dinañ ko jàppale ci kaw ci kanam rek ci lu baax. asubilaa mina seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp di ziar ñëpp di balu ñëpp ak tey baal ñëpp ak di ñaanal ñëpp kilifa diine kilifa aada yi. Euh, ama moom amuñu fayam moom wax dëgg na yàlla ama yaru na baax na suñu doomu ndey suñu doomu baay yaa ma gën a xam. di ko ñaanal nag di ko ñaanal di ko ñaax di ko wax ca kaw ca kanam euh, ca kaw ca kanam daal ñuy dem <laughs> yaa ma gën a xam li liñ naa li doof ci cin li xëjoo si nag li def ci nag bi xëjoo si cin li ñun daal am mën lii sax mënuñu ko mënuñu sax a wax booy xoolee nii daanaka mënewuñu ko yaa ma gën a xam mais daal ñu ngi koy wax ca kaw ca kanam yaa ma gën a xam am nañ ci moom yaakaar nag waaw di ko ñaanal ñëpp jàppale ko ñëpp ñu jàppale ko bu baax a baax a baax ndax mu dem di wax ñëpp ñu jàppale ko muy fii muy feneent rawatina waa reefan yaa ma gën a xam ñu jàppale ko bu baax a baax a baax ñu ko jàppale moom dina dem ndax am nañ si moom yaakaar bu baax yaa ma gën a xam te kaw ca kanam incha allah yaa ma gën a xam waaw dafa leer. <laughs> waaw jaa ngeen jëf yi ñu ngi magal ñëpp waaw di la bëggee yow Omar bu baax a baax. di bëggee gars yëpp mafia bëpp amuñu seen fay waaw ñoom mafia ama bi booy kalamale gars yëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax <laughs> waaw ama moom mooy loolu moom borom baax la moom daa nekk nit koo xamante ne ni moom dafa sos si ñun te lu mu dugg dañu cay dugg suba ba ngoon barki arxuraanul karim te lam ji daa doon lam ji yëfam la barki arxuraan parce que li mber di am lépp am na ko doole jaa ngi fi bore baa ngi fi fit baa ngi fi barki arxuraan Ama kere bi mu jëlee décision ne day bëre jouru combat bi bu ñëwee du xeex du def dara barki alxuraanul karim kere jouru combat bi man fale laa toog xam ne sa waay day andi ndam li parce bëre boobu noonu moo ngi si moom amul morom moom men moo xamante ne nii dax na koo bëri décision boobu mu jël décision bu ma neex la bu ma soñoon chaque combat noonu la fay demee waaw mooy loolu parce que gars yu bëri dañuy taxaw naan ama xeex la man ñii naan tapet la affaire yooyu noonu mais kere daa ñëw woon moom mber kaamir la affaire yooyu te ñun loolu la ñu soxla teel la ñoo libéré mooy loolu noonu dafa di ñaaxaat gars yi ñu ñëw jàpp ci bu baax a baax xam ne affaire yi métti na torop wet nañ ci sonn nañu torop moom barki alxuraan gaa am na gaa yoo xamante ni ñu ngi ciy jàpp ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax mais ñu gën a dugalaat seen loxo ci affaire yi xam ne soxla nañu ko te jàppale moom du doy moom mooy loolu combat barki yàlla jour combat bi sax ba jour combat bi laa la wax dañuy demee de di wut xaalis lu luñ jële carrière ek affaire yooyu noonu métti woon na torop daal ñu ngi ñaaxaat gaa yi ñu ñëw jàppale ko bu baax a baax te xam ne kii moom champion la moom bu ñu ko jàppalee day dem bu ñu ko jàppalewul day dem kon na gars yi ñëw teg ci loxo rek affaire yi day gën a neex ci kanam waaw sëñ Fallou waaw. sëñ Fallou waaw di wax ne victoire bi moom bettuñu moom ndax ñun ñoo nekk ak Ama ñun xam nañ amaa daj victoire bi mënuñoo bett quoi ñun moom daam li chaque fois mënuñoo bett quoi Ama moom ku boog la am moom jàpp rek moo ko des barki sëñ Fallou billaahi bu nekk bëccëg mu ngi si lam billaahi amaat daal sawaay jàppale moo ko des billaahi wallaahi di wax gars yi ñëw billaahi gannaaw dafa war a am champion quoi ñun ñi nekk ñu ñun gémul leen ñun amaat lañu gém billaahi waaw mooy suñu weeruwaay billaahi moom lañu am amaat lañu am amaat suñu lépp billaahi ñun xam nga mënewuñu wax quoi moo tax mais billaahi kii champion la war a door fi champion yi yem ki bu Grand doomu Grand Yoff doomu Bawol billaahi ki day door champion de te li maa la ko wax <laughs> maa ngi leen nuyu di leen sant ama suñu mbër bu baax la daa bëgg xale yi nag ñu koy ñaanal nag yàlla ndam li daal yàlla na di dem rekk Laurent Ndiago lañ bëgg rek mu ñëw ba rek moom mu defar ko bagaas loolu rek lañ bëgg. nga seet si nii ku jar seet see ngi nii kii damay pàpp si moom kii moo kii damay pàpp si ñoom ndax seen pàpp bokk nañu néeg presque. 25 ans maag seen papp seen pap ku baax la ñu koy ñaan yàlla yal na ko fi yàlla bàyyi ba mu dem ba fekkee njëriñu ñii surtout ama bi yal na ko fi yàlla bàyyi moom ba dégg daali si làmb ji parce que kii sama doom la quoi sama fils la maag pappam dañ yàgg comme nag te bi muy jógee reefaan aussi bi mu ñëwee Bada jëm kenn ñu ngi koy nuyu di ko sant Bada parce que bi mu ñëwee ménageurs yu bëri ñoo ko daw wutal si danaan déedéet bëgg a fàllu papam bëgg a laa koy jox comme jii man maa ko yor de maa ngi nuyu Sëwru Fall tamit di ko gërëm parce que Sëwru Fall ku jafe si yi la ku dee ak sa bàmmeel parce que chaque jour man bien vrai que dama nekk si mais Sëwru Fall saa yu signé xale bii di la ma yónnee sama 10 pour cent parce que am na ay promoteurs yu am na ay ménageurs yoo xam ne man ak ñoom xamante nañu bu yàgg lu bëri ñu ngi koy def mais li Sëwru Fall di def si xale bi si man ñoom duñ ko def am na ménageurs yoo xam ne jëli mbëru mbëru jàmbur yi lan fi nekkee. gëmuñu yàlla bu ñu waxee ñu yor seen kurus di wird yàlla xool lay fay julli bu bari wala wird bu bari yóbbul nit àjjana yàlla xool lay fay comprendre nga Soro Fall mention spéciale maa ngi koy jaar di ko sant parce que Olof Diagne dafa ne comprendre yàpp yëpp bu ñu ma doon ni res jaasu di si am yoon sawru res la ñu koy ñaanal moo xam li mu bëgg si làmb ji yàlla na ko yàlla may aussi di ñaanal sama président Pape Diagne Seras ñu ngi koy nuy di nuyu Soro Fall di nuyu Pala ma jama comprendre nga Abdoulahat comprendre nga di nuy ménageur yëpp di jël nuyoo bi teg ko si loxo suñu président baabu Bassirou Babou baabu nga mais nag euh, xale bu baax baaxee nii xale bu yaroo ngi nii comprendre nga te nag euh, waa làmb nañ ko bàyyi xel waa trois fekk bi mu ñëwee dakaar nii lu rare la def quoi dafa def trois combats trois victoires la def lu rare lu mu lay wax lu rare la def trois combats trois victoires aussi di ñaan grand gi la di ñaan bu amatee combat Pape Madiop maire Grand Yoff maa ngi lay ñaan sama boy nga xam nga ku baax di la ñaanal yenn bi la yenn nii yal na oyof comprendre nga si barke Seydina Mouhamad mu Madiop maa ngi lay woo gone gii bu amatee combat nga jàppale ko te yàlla tax Grand gi lay juddoo fii la Grand gi lay yeewoo fii la léppam ne comprendre nga sama koñ ñëw dëkk di ñaan yàlla bu amatee combat mu Madiop yow yaakaaruñ si kenn ku dul yow nga jàpp si comme nag di ñaan aussi président écrit bi muy pro Kébé Aline Badara Kébé kii sama doom la man di ma nee sa grand kii sama doom la boo amatee combat grand gii la dëkk nga jàppale ko te yàlla tax comprendre nga di wax autorité grand yëpp boo amatee combat da ko jàppale te yàlla tax parce que ama bu reefan la reefan la dëkk mais grand bi mooy léppam sama doom la ragalu pété day xañ a wërsëg comprendre képp ku mooy jàppale rek na ko jàppale te yàlla tax di ko ñaan me Ousmane Seye comprendre nga kii sama doom la yéen ñëpp ñoom Mouhamed Seye ñoom bébé Seye maa ngi leen di ñaan gone gi saa yu amatee combat ngeen ñu jàpp si ñëpp na si jàpp-jàpp daal comprendre nga parce que lu raar la def trois combats trois victoires te ba nii ñu ngi dox benn combat bu xam naa incha allah le 24 juillet di la si war a bëree comprendre nga di ñaan yàlla combat yi may am yëpp ñu may ko si ndam quoi xam nga aussi di ñaan aussi nit ki looy def toujours nan ko ñëw jàppale am na benn waay ji fi toogoon léegi am na benn ngóor si fi toogoon léegi yore làmmiñam di wax te boxeur la kii boo amatee combat day ñëw di ko jàppale boxe comprendre nga ñëw di ko jàppale wax foofu mooy wax bi daal day ñëw di ko jàppale boxe parce que ni mu ko juree la ko juree comprendre li mu ko juree la ko juree ni mu ko jàppale daal loolu laay am lu may wax fekkee am na tamit loo may laaj tamit xam nga yow laay déglu maa ngi lay gërëm Omar Sall yow moom di sant di la gërëm parce que yow lépp grand la waaw yow muusu Grand sax moo la gënal kañ a Pikine comprendre nga ñu ngi lay jaar di la di di ñaan nag waa Grand yëpp nañ ñëw jàppale ama bii waaw aussi di ñaan nag bëru Grand mbooloo yi am combat bëru Grand yi am combat ku mel ni Fourier day bëri lu douze yàlla na ko yàlla may ndam si barke sëñ Fallou turandoom comprendre nga ku mel ni Assane moom day bëri lu moom it yàlla na ko yàlla may ndam góor fit day bëri moom it ak ñoom soxor kale képp ak ñoom doomu père jaww bi comprendre nga ñoom ñii bëri ñoom ñëpp yal na leen baat vocal waaw caatu seen sala ñii tëgg grand fi yëpp am combat yal na leen yàlla may ndam si barke Seydina Mouhamad maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant jërëjëf. waaw grand ñu leen di nuyu di di leen sant yéen ñi ngi xam ne yéen a ñëw fii tey pour jël si suñu mbër bi. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax mbër yu ndaw yi bon day day jar à chaque fois ñu leen di jàppale surtout lu mel nii quoi da ci am importance trop souvent télévision yi ñoom wala site yi dañuy dem jël mbër yu mag yi bàyyi fi mbër yu ndaw yi or que mbër yu ndaw yi ñoom seen objectif yëpp moo ñu yegg si kaw te pour ñu mën a yegg si kaw euh, il faut yu mel nii di am gars yi di leen jàppale di leen may loxo di leen ëppale pour ñu mën a yegg fi mbër yu mag yi parce que ñoom loolu mooy seen objectif donc ñu leen di sant di leen gërëm comme ñoo ngeen jël si suñu booy bi xale la nag xale bu ndaw la buy doog a door ne si làmb ji bon euh, bëgg nañu euh, doomu Grand Yoff la doomu Réfane la ñëpp ñëw jàpp si def ci seen loxo xale la boo xam ne ku am jom la xale bu mën a bëre xale bu gëm boppam gëm na boppam am na jom mën na lu muy def te bëgg na ko tamit donc li mooy doomu reefan yi jàppale ko doomu grand fi jàppale ko ba fu mu tëg bëtam si làmba ji fu mbëri mag yi yegg moom mu mën faa yegg loolu mooy objectif am ñun tamit loolu mooy suñu objectif lépp lu ñu mën si jàppale ko dañ ko ko jàppale comme ni jàppale yeneen mbëri grand fi yëpp parce que man mii di wax ak yow presque mbëri grand fi yëpp képp ku fi takk ngemb man jàppale naa la ci sama xam-xam ndax grand mbooloo man may seen coach box Zarko lu commencé Zarko ba ci suuf yëpp entraîné na naa leen mbër buy takk ku nekk écrit grand mbooloo am combat presque jàppale naa la sa box rawatina nag ki nga xam ne maa moom ñoo bokk benn kër malgré newul grand F mais dëkkandoo mbokk la dëkkandoo mbokk la donc lépp lu mu mën si moom si jàppale dinaa ko def ñi nga xam ne ñi euh, ñi nga xam ne ñoo ko encadré tamit ak écrit bu mu nekk lépp lu ñu mën dinañ ko def parce que ki neex a jàppale mooy ki am jom am fula bëgg lu muy def nekk di ko teg si yoon kookoo neex a jàppale kon xale la nañ ko jàppale te gunge ko yéen nag yéen dañ leen di sant parce que lii yombul lii yombul jël say moyen jël say ñëw fekk fi mbër bu mel nii talal ko si micro pour gën ko may doole loolu dañ koy rafetlu mais tey toll na fi nga xamante ne tànkam da koy teg rek di yéeg si kaw macha allah yàlla nga koy jàppale mu ngi bëri am ay ndam dañuy ñaan yàlla yàlla ndam yu yokku yàlla ndam yu yokku ba yaakaar bu ñu am suñ moom ak waa Refane yëpp mu bañ a tas suñu yaakaar mais mbër lenn la dangay nangoo entraîner premier objectif si mbër mooy entraîner ba am doole gaa dañuy wax ay gala ay kii mais ok yooyu yëpp c'est bien boobu mais yooyu troisième position la si làmb dangay ngay nangoo entraîner am fit mën na mën li ngay def bu boobaa nag galaaj mooy ñëw complète la mais galaaj doo ko jiital moom mu ngi entraîner day teel a tëdd comprendre nga fonk na boppam kon na gën a góorlu kaala bi nag mu ngi si ndigg bi bu mu ko teel a ànd mukk si bopp bi kaala bu mu takk si ndig bi bu mu ko teel a ànd si bopp bi parce que mbër yu bëri seen problème la la mbër yu bëri seen kaala dañ koy dañ koy teel a tekki si ndig bi ànd ko si bopp bi souvent loolu moo leen di gàllankoor souvent loolu moo leen di gàllankoor mais affaire bi na ko bàyyi si ndig bi rek bu demee ba si kanam kenn du ko ko tekkil nit ñoo nit ñi ñoo koy tekk yóbbu yóbbu ko si bopp bi donc na gën a bu baax a baax a baax gën a respecté entrement yi gën a respecté écréme gën a respecté encadrement am te topp ndigalu ñi nga xam ne ñoo ko encadré loolu làmb lool rek la da ngay respecté ay conseils yi ñu lay jox sonk say waajur sonk ñi ngay àndal bañ a teel a nag parce que ku sa am ay 3 4 5 victoire rek nga yaakaar ne yaay champion te làmb ji li fi nekk si mbër kenn xamul nuñ toll bëri nañ lool trop donc pour nga rampe ba nga yegg si kaw sacrifice moo la koy may sacrifice mooy yu bëri da koy tege à côté yu bëri da koy tege à côté problème mu jigéen da koy tege nële bokk si làmb dafa fiir àndul ak leneen làmb àndul ak leneen loolu dañ koy dañ ko koy ñaaxee moom na si góorgóorlu bu baax te xam ne làmb dafa fiir mënul ànd ak dara entraînement ngay def lekk ba suur teel a tëdd respecté ñi ngay àndal fonk leen bu ci xeeb kenn soo ko defee rek yàlla mën na la jàppale loolu rek la amoon si li ma koy wax na gën a góorgóorlu ñun ñëpp ñu ngi si ginnaawam Réfane a ngi si ginnaawam Grand mu ngi si ginnaawam Tapha Tine boo gisee mu déplacé wu ñëw ba fii seet ko parce que am na yëg-yëg ci moom combat bi passé rek ñëw na ba fii donc am na yëg-yëg ci moom kon loolu ñun ñu dëkk moom bu fekkee Tapha def na loolu asuma ñun ñi nga xam ne ñoo bokk moom benn kër gi comprends nga ama ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi sa wet bul naagu bul xeep kenn ñu gën a góorgóorlu si entraînement yi gën a fonk sa bopp respecté say parents respecté ñi ngay àndal respecté ñi nga xam ne ñoo lay dar di jël seen moyen di def si yow parce que mbër boo gisee ñi nga xamante ne dañuy jël seen xaalis di ko jënd ay t-shirt say t di sol ñu ngi lay jàppale ñu nga xam ne dañuy jël seen xaalis di ko jënd ay billet di dem stade di la seetaan yi ñu ngi lay jàppale ñi nga xam ne dañuy génnee seen xaalis di ko jënd ay ceeb ak diwlin ak di togg di toog ñu ñuy lekk ñu ngi lay jàppale li si des la am nañ yaakaar si yow yàlla bu yàlla tas yaakaar merci beaucoup jërëjëf. aca di bëggewaat rek ñi ci jàpp ñi ci jàpp ci combat bi ak ñi ma yaakaar saamel gaan ñi yaakaar yàlla na bu yaakaar tas si man billaahi maa ngi koy ñaan bu baax di ko yeewaal di ko nelewaale ni ñu ma yaakaar rek ni ñu ma gëme yàlla na bu ko yàlla tas ak ni ñuy sone ci man billaay wala yàlla bu yàlla tas loolu daal mais di sant ñi ci jàpp ñëpp waaw ku mel ni ab Ablaay mii moom awma fay am billaay walaay kii moom su ma jàppee lam bu léegi moom la quoi ndax wax ji bari na coow li bari na mu jàpp rek te bàyyi quoi ñoom Aliou Séeréer yi ñoom Jibi Njaay mii day son ci affaire bi billaay walaay gaay awma seen fay daal ñoom seen a ñii ak gaay ci kaw alaaji yi ñoom falu yi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ñoom njaxas sis ñoom Cheikh Fall booy jiyey ku baax la ku son ci man Cheikh Fall maa ngi koy san bu baax ñoom Mbay Ndaw ñoom Moori ñoom Daawit ñoom Seena maa ngi leen di san bu baax ñoom Sëñ Roq ñoom ñëpp maa ngi leen di sant Moodu pharmacie it kuy son ci man la billaay walaay ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ñoom Njame Ndaw Njame Minise sëñ bitik ñoom Tafatin kera daa ñëw bu fii Grand moo jàppale ma ñaax ma suñu grand frère ñu ngi koy ñaanal roi de Sarène ñoom Ndiaye Tine ñoom ñëpp ñoom bay Guy gi ñoom kewel nokki ay daal sama gaay yëpp mbër yi bawol yëpp aw ma seen fay billaahi maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax Xaadim Tine borom saam moo gën fii borom yére yu rafet yi ah. gis nga fi mu ma jaaraleeti moom it day jàpp ci combat bi day son ci combat bi fu ma amee combat premier combat bu bu nii ma mujj a bëri da ciy jàpp ku sonti man la xaw ma fay am waaw di sant ñëpp daal ñëpp képp ku jàpp ci combat bi rek Moussa Faye CFA maa ngi koy sant bu baax keroog it sonn na ci gaayen dafa maam Thiaf ah keroog it na ci bés bi maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ay Mamour Ngomine gaa yooyu waa Mankoo ñi Ablaye Ndour sama doom baay maa ngi koy sant bu baax ñoom Signe Abdou ñoom Serigne ñoom Issa ñoom Bac ñoom Soxna Ndiaye ñoom ñëpp ñoom moo Sarr aw ma seen pay ñoom it jàpp nañ ci kombaay bi bu baax a baax a baax a baax ku ci mel ni Saynutina Saynutin saltige jàpp na ci combat bi bu baax a baax Saynu jàpp na ci bu baax maa ngi koy sant bu baax Modou Ndour ñoom di sant waa ci la bu baax sama dékku sëriñ waa ci la maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax aw ma seen fay gis naa ni ngeen jàppe ci kombaa bi di sant daal reefan gépp aw ku lim daal da ngay juum wala doo métal mais ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm xam ne xalay fatu bëgg nañoo lim ñëpp mais mooy lool di santaat suñu yaay suñu yaay bu baax ñu ngi koy sant bu baax di ñaan dem bu fekkee suñu njëriñ quoi yal na yàlla def loolu di sant sama yaay jeneen ji yaay Ndoura maa ngi koy sant baax a baax a baax di sant Baye Seen a baax suñu paa bi maa ngi koy sant baax a baax a baax a baax képp ku dëkk ca koñ ba daal di ñuy ñaanal ñu ngi lay sant di la gërëm di la wan wax ngeen yokk ñaan yi maa ngi seen ginnaaw waaw. acca di santaat ñëpp nag di gërëm ñëpp waaw Omar Saliou yow ñu ngi lay sant ak sëñ Modou Casamance sëñ Modou Diop ku son ci man la maa ngi koy sant bu baax Jibril Ndour maam Thierno it kuy son ci man la maa ngi koy sant bu baax a baax a baax yal na yàlla wéral baat bi nga dem bu. fi ñuy tudd xaadim géyeen ñoo ñu la fay tudd ak sa turandoo ak saayen ñoo ñëpp ñu la fay tudd di sant Omar Saliou kenn la ci man ba ñuy xamante booba dikkaguma Dakar booba bëreeguma stade ku oyof foo ko vocalé da lay tontu ku yég nit la daal billaay maa ngi koy sant bu baax a baax a Omar Saliou ku baax la nit ku nangoo son ci mbër yu ndaw yi la ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax yow moom boroom xolu jamaa bi groupe idaale bi bépp gis nga ni nga fi doxale kenn du la fi xarab kenn du la fi lii ñu ngi lay sant bu baax yàlla yàggal sa taxawaay nga dem bu yor ay télé tele barke sëñ Fallou ok ah di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax suñu écrit yàlla na fa ndam sax yàlla na fa ndam sax yàlla na fa ndam sax